nga jóge léegi ci benn événement euh, imprévu boo xam ne xëy na yaa ngi ko doon xaar mais xëy na xaaroo ko woon léegi votre domicile a été attaqué il y de cela deux heures de temps nan la mbir mi demee. mais may mun a ginnaaw ba ma sant yàlla euh, nuyu askanu Sénégal ma masuwu la masuwu la parce que dama la xam démb tey soog a ñëw et man. yàgg naa dem ci ay plateau wante ak suma style ak suma yar ak teggin ma wax mbokk yu ma fa fekk lu ma xalaat ci seen ligne éditoriale wala ci seen taxawaay et je pense que yow kenn mënula dëkkaloo foo dëkkul ba may ñëw fii léegi nii j'ai constaté euh, un dispositif de sécurité de la gendarmerie impressionnant et je ne comprenais pas ce qui se passait et c'est là qu'on m'a informé que La gendarmerie est là pour surveiller le groupe 7 TV qui est menacé Maïmouna Sénégal ñaar mooy am ñaar où l'État prend ses responsabilités où les citoyens que nous sommes nous prendrons nos responsabilités parce que ragal dëkku fi ñuy wax tëju seen kër di wax loolu yomb na ñit di ko def mais dama bëgg a wax ci mu leer ci boppu ñëpp Moi, je m'appelle Barthélémy Toye Diaz. Je ne suis pas une personne qu'on attaque dans ce pays. Ce n'est pas possible. M'attaquer n'est seulement pas possible. Ceux qui le font, ou bien ils n'ont aucune culture, ou bien ils sont hors d'eux-mêmes, ils sont dans un état second, ou bien ce sont des gens qui viennent pour se suicider. Parce que je ne fais pas partie des hommes politiques qu'on attaque. Voilà, et mercenaires, ils comprennent. Lu ma mën a wax bëgguma sore ci wax ci. Euh, j'ai été secrétaire général du mouvement national des jeunes socialistes. Je connais c'est quoi la lutte politique, je connais quoi la rue. Et je vous le ma wax ko fi tey ma bëgg wax ci leer askanu Sénégal jógul te su ma neexee ma yokk ci ma ne Dakaaru Njaay bii dafa am borom te man dama décider dama dama dama décider que heure xeex jotagul. nga ne askanu Sénégal du askanu Sénégal moo jóg. mukk li xew démb ak euh, ce n'est pas une expression euh, une aspiration de la volonté du peuple. pas du tout. lan la. je crois que dund nga ak ñun mars 2021 askanu Sénégal a jóg. dinaa si delluwaat fii que des militants d'un parti ou des sympathisants d'un homme politique wala ay Samba yu ñuy fay parce que lu mooy dëgg euh, ñu ñu jàpp suñu buntu kër léegi nii euh, xaw ma fu ñu nekk wante mën naa leen ko waatal fii ñooñu du ñu ñëwati mukk ba illaa yow mi din kër Barthélémy Diaz <laughs> fa laa mën a yem ci wax ci ah, ah déet déet déet parce que tey dama toog suma kër di añ 14 heures démb laa jógee voyage ma ñëw tey di añ man maay meeru Dakar donc kilifa yu fi nekk yëpp te yor kaaraange gi damay liggéey ak ñoom damay liggéey ak armée parce que 4 avril dañ ci dugal suñu loxo maa ngi jéglu nag parce que maa ngi tudd tur gi mooy le colonel Beng. Abdou Mbengue. moom mooy yor légion buy couvrir Dakar. woo ma ne ma monsieur le maire ba yaa ngi am jàmm ma ne ko maa ngi sant la mu ne ma dama lay woo parce que dañu am ay information comme quoi sa kër dinañ ko song ma ne ko colonel. baa yaa ngi am jàmm non <laughs> maa ngi am jàmm ma ne ko colonel yàlla na la yàlla yokkal sutura ak jàmm kër gii doomu aadama mindeef muur song kër gi te may yokk ci lenn ku may waxal mu may seetaan moom ci boppam moom xam na ni man mënuñoo song suma kër moom xam na man xam naa kan ngay moom xam na man xam naa Ousmane Sonko xam na man xam naa man du ma nit bu ñuy song wante dinaa la wax lenn tey man nit la man damay ñite man làbbee ñoo ma yar man je refuse d'insulter l'avenir parce que damay politique te damay fàttaliku démb ak bërki démb parce que ñu ci bëri tey ñuy xataraayu parce que c'est de ça qu'il s'agit am na bés ci bërëb ci waxtu saafonte naa ak seen ay wujur yu jigéen saafonte naa ak seen ay soxna saafonte naa ak seen ay doom am na lu ma rus a def mais kay waat ci bible bi laa wax ci bible bi laay waat su ma waa kër su ñu amulee jàmm seen waa kër yi du ñu am jàmm su ma doom yi su ñu amulee jàmm ma waat ko ci yàlla seen doom yi du ñu am jàmm te ma biiralaat wax ci ku fi juum songaat suma kër du ngeen faraan seen kër te fa laa yem nag ci wax ci. parce que yow. non ma ñëw rek. non xaaral nee na wolof Ndiaye nee na. wax bu yegg wolof Ndiaye wolof Ndiaye nee na. du ñu gis ku tooñ ku fayu la ñuy gis et j'ai les moyens de me venger j'ai plus que les moyens de me venger parce que askanu Sénégal jóguñu song ma parce que sénégalais xam nañ ma amaana mën nañ bañ a ànd ak man amaana mën nañ réeroo wante xam nañ Barthélémy Dias man du ma naa féq man ma bëgg ma bëgg a wax ci mhm. leer lu ñu def tey suba buntu kër xale yu ñu fa jàpp kenn rek mooy yeewu Dakar ci xale yi. kenn rek moo ci dëkk yeewu ñetti ñëpp ñaari ñoom ci gàttal ñoom ci gàttal dégguñu sax wolof dégguñu wolof. j'ai demandé à ma sécurité ils n'ont qu'à remettre les téléphones aux éléments de sécurité chargés de l'enquête lu ma mën a wax ci waxtu bii nii mooy ñu ñu jàpp dëkkuñu Dakar dañ leen fi indi. te dalal leen ci këru benn responsable bu bokk ci benn parti politique te responsable bu mi ngi dëkk Wakaam fa laa mën a yem ci wax ci. parce que maintenant nag ma bëgg a wax ji leer. parce que gis nga ay euh, Maïmouna Maïmouna ces enfantillages vont arrêter man ak yow mën nañ bañ a ànd mën nañ bañ a bokk gis-gis mën nañ sax réeroo wante amoo droit def yenn yi di ko jëmale ci man. aw ma droit di la def yenn yi di ko jëmale ci yow parce que nous sommes d'abord de sénégalais. Ouais. ensuite ñu doon ay jullit. gis nga yàlla mooy teg doomu aadama nattu yàlla su waxoon tey yow mii may mun a balaa minuit lii ngay doon mindeef munul muus te waane ba loolu doo ko doon. Ouais. ko déggee noonu looy dund ci àdduna ak lu mu metti metti ak lu mu diis diis su su ci yàlla àndee rek na nga jàpp ne ni ndogal bu la yàlla teg la moo tax ñun catholiques yi ñu ne les épreuves ne son qu'un test de ta fois en Dieu yow mënoo ne jullit nga jullit mooy kuy julli di gëm yàlla yàlla tey teg la nattu te dara beesu fi nga ne dëkk bi kenn du fi am jàmm na nga ko déggee noonu ñëppay am jàmm yow nga am jàmm wala à partir de maintenant yow ñun du ñu am jàmm yow doo am jàmm suñu njaboot yi du ñu am jàmm yow tamit doo am jàmm sa bos tamit doo am jàmm parce que je veux que les man suma kër waxuma suma xu kër ma maison n'est pas attaquable le reste maintenant au besoin si les gens ne font pas preuve de tenue et de retenue nous réglerons nos problèmes dans les rues de Dakar ko wax fii. parce que su ma déggee sa wax bi on va Modou va nous proposer euh, les images euh, des gosses yi nga xam ne euh, dañ leen jàpp sa sa sa kër en attendant que Modou Diouf proposé ñu ko su ma déggee sa wax yow da nga identifier. xam ñi nga xam ne ñoom ñoo la attaqué fan la ñu jóge kan moo leen yónni nous avons tous les téléphones d'après les informations voilà Modou euh, voilà je, je, je laisse passer l'ambiance donc ñii ay xale lañu xale yi ñaar ci ñoom dëkkuñu Dakar ñaar ci ñoom dëkkuñu Dakar dëkkuñu Dakar dëkkuñu département de Dakar dëkkuñu région de Dakar dëkkuñu fii yëpp te dëkkuñu wolof ils sont originaires de quelle localité bëgguma sori ci wax ji parce que Sénégal benn bopp la kenn mënu ko xar ñaan ah, ñaar je le répète pour la dernière fois nous aurons la paix par force ou plus personne n'aura la paix. parce que yéen da ngeen interviewé xale yi ñu wax leen ki leen yóbbu ak fan ban parti la ñu bokk. j'aurais souhaité que certaines images ne soient pas montrées dans ces vidéos parce que ça mes éléments de sécurité xale yi. interrogé wu leen Modou Modou euh, xale yi kenn interrogé wu leen. xale yi dañ leen chiffay proprement. fii ku fi reewantu ñu won la ko xoolal reewantu tubéy mais que warul leen woon. déet livrer leen à la police. non déet la police au on s'est pas fait justice soi-même on n'est plus en république. en république am na ay jéego kenn du ko def yaa may dégg. on n'est plus en république. ku la woo ci ma tey nga wuy si ko ci ma tey. yaa may dégg woyu bandi mooy bàyyam man Barthélémy Diaz yebuma kenn Sénégal kenn du ma fontoo laa wax mbëgg a wax ci leer. ñu fi tey teg seen bopp ci benn situation de victimisation ma bëgg a wax ci leer te sénégalais yi mën nañ ma séede je ne suis pas à l'origine de leur problème ok vous allez me lâcher les baskets et le plus rapidement possible vous me connaissez da ngeen di fooy seen xel rek vous me connaissez très bien mu neex leen vous allez me foutre la paix je m'excuse l'expression mu naqari leen vous allez parce que dañu xamante c'est ou bien je règle mon problème man pare naa ci wax. les jeunes sont mis à la disposition de la police. Ah. et ces jeunes sont envoyés par un responsable de Pastef bu dëkk Wakam. je ne cite pas de nom de parti j'ai dit que ces jeunes parmi ces jeunes il y en a un qui habite la commune de Mermoz Sacré-Cœur. qui est de Pastef. je ne parle pas de parti parce que dans tous les partis politiques il y a des personnes réfléchies et des personnes sensées. mais Barthélémy nga wax wax ji mu leer. mais dama c'est-à-dire xam nga man xam nga man. xam nga man du ma daay wax ci dama ne ils sont quatre les deux dëkkuñu Dakar du département du région te dégguñu wolof les téléphones ont été exploités ils ont été proprement corrigés avec la forme sous mes instructions parce qu'il faut que je sois clair on a même refusé que je sorte de chez moi xam ngeen man su ma génnee suma kër léppay xumbate dagan dama bëgg wax ci leer man su ma génnee suma kër xumba xumbate dagan maintenant nag damaa jëm mag tey su ma doom moo ma téye su ma doom am na doole bu toll nii man ma téye man di bàyyam maa ngi ci politique depuis dix-huit ans musuma song nit physiquement dinaa la attaquer verbalement naa la attaquer par la plume l'image ou la parole parce que moom la constitution may sañ-sañ homme politique mu mën ko utiliser dans le monde politique mais il n'est pas question d'accepter que des gens qui sont victimes d'une injustice ñëpp xam nañ ko mais dara beesu fii ñoom balaa ñu nekk victime d'une injustice nous avons été victimes de la même injustice ñu décider que nous qui ne sommes pas à l'origine de leurs problèmes ñun du ñu am jàmm